wàllum économie itam la ko jëkk ñëpp dañ daa naan màggal Tuubaa gi yàq na ndax feet yi dafa bëri ci réew mi kon dañ ko war a bàyyi ndax mooy di daaneel économie réew mi ñu dem ba jàngat nañ ne mboolem feet yi Sénégal yëpp état Sénégal dana ci perte nangam màggal Tuubaa nag waxuma la état bi di ci perte waaye deux cent cinquante milliards dana ko dugal ci Sénégal deux cent cinquante milliards boo xooloon taxi yi nga xam ne état bi dana ko ci am dem na ci lu jege ñeent fukki milliards kon loolu mooy taxi direct ak indirect kon Magal Touba lépp loo xam ne nguuru Sénégal def na ko ci rek doo ko delloo ci biir Magal loolee itam moo jur 2011 bi ñu defee étude bi ñu xam ne màggal gi waxuma la muy nekk lu yàq koom-koomu Sénégal waaye day yëkkati koom-koomu Sénégal. ca lañ sàkkoo nag ne màggat gi mënisu mënisutu ko ñàkk def fenn loolu ñoo ko sàkk dox ci ay jéego jéego yi ma ci dox ci biir du ma ko wax lu jafe la woon ba yàlla def mu sotti